aousubillah min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu di gërëm euh, monsieur Birame Souleye Diop honorable député mi jël kàddu léegi nii di nuyu mbooloo mi yépp topp suñu wet di wax rekk nii ak naqar tey la jël kàddu d'abord di jaal sunu mbokk lebu yi nga xamante ni dañoo am naqar ñu teg leen nattu teg leen mbugal goo xam ne ñu ngi koy dund mu metti lool ñu ci associé wu mais surtout di leen jaale sunu mbokk yi nga xam ne ñoo ci ñàkk seen bakken di leen ñaanal yàlla mu jeex ci nu mu gën a gaawee di wax rek ni ñu ngi jël kàddu tey pour rendre hommage ñi nga xamante ni ñoom la ñuy wooye les détenus politiques yi nekk ci kaso yi muy kaso yi nekk ci Sénégal yépp fépp foo xamante ne rek détenu politique toog na fa ñu ngi lay jox loxo di la masaw mais di la jaajëfal di la rendre hommage parce que jamono yii nag mooy jamono yi nga xamante ne ku ne bëgg ngaa doon détenu politique ku ne bëgg nga ñu jàppal nga dugg ci kaso yi ñun ñii bokk nga xam ne xeexal suñu réew moo ñu tax a jóg ndax góor rek mooy tëdd ci kaso yi fi mu nekk nii di wax rek ni ñun jigéeni Pastef ñu ngi naxarlu lool li nga xamante ni moo xew actuellement ci réew mi Pastef di ko subir mais surtout sunu leader la président Ousmane Sonko di ko dund duñ ci dellu siwaat ndax monsieur Birame Souleye joog wax na ci muy loo xam ne nag teguñu ko ci lenn ci ndoddam lu dul jaay ko doole waaye nag lépp mooy jeex ci àdduna te ñaan nañu yàlla lii nga xamante ne mi ngi koy subiir yàlla mi ko sàkk may ko fit bi mu am dénk ko pas-pas bi mu am ak engagement bi mu am bëgg réewam bëgg koo défendre yàlla génne ko ci Macky Macky sàll du buur yàlla dénku ko nguur pour muy jaay doole sénégalais ya dajale seen doole seen yéen ak seeni baat dénkoon ko xëy na ko doy na dañoo bëgg a récupérer kon du moom moom moom réew mi wala muy buur pour di def lu ko neex kon lii muy def Ousmane Sonko di laqatu ci ginnaaw justice ñaawlu nañ ko fu ñaaw lu mën a yem te it ñu ngi ñaan mu jeex lu mu gën a gaaw waaye ñun dey taxaw nañu pour mu jeex niñ ci taxawee nag lenn rek la mois de mai bi yëpp dañu fas yéene manifeste manifester bi nag lenn rek la lundi bi ñu ngiy woo képp kuy journaliste muy la quinze à quinze heures devant le palais de la république ndax déposé nañu autorisation pour ñu def suñu sit-in boobu nag li ci jublu rek mooy def suñu déclaration wax ak réew mi ndax ñun Macky sàll taxu ñoo jóg dañ koo dénk ne ko doy na bëgguñu nga bokk ci sunu euh, euh, euh, élection présidentielle 2024 muy siisu siisoom googu nag moom la concerné ak ñi mu àndal waaye ñun suñu ligne de mire sénégalais yi la ñu visé te peuple sénégalais la ñuy waxal ñu bëgg nag sénégalais yi déglu ñu altine le 15 mai 19 2023 liñ ci namm mooy wax lépp lu nga xamante ni nii ñu ngi koy ñaxtu ci injustice ci jaay doole ci manipulation ci acharnement bi nga xamante ni président Ousmane Sonko ak waa PASTEF ñun ñii ñu ngi koy dund autorisation bi nag am nañ yaakaar ni dinañ ñu ko jox te xam nañ ni dinañ ñu ko jox donc on donne rendez-vous à tous les journalistes lundi 15 heures devant le palais de la République leneen li mooy vendredi 12 bii manifestation bi am ñu ngi woo képp kuy jigéen na nga ñëw teew ci képp kuy jigéen sa njariñu réew sa ëllëgu doom ndax ñu li ñuy xeex pour suñuy doom la suñu doom yi ëllëg lan la ñuy fekk fii ban Sénégal ndax dinañ fi jëlee Sénégal gi nga xam ne benn clan moo fi nekk séddoo ko di lekk ñoom rek ay lekk kenn du lekk foqale buqale duñu maye dara lépp ñu jël ko yamale ci seen bopp ñun nag ñu bëgg suñu réew yi fekk fi Sénégal goo xam ni dina tane ñun bii ñuy dund kon nag yéen jigéenu Sénégal yéen ñi nga xam ne vous vous sentez concerné par ce combat nous vous appelons ce vendredi 12 ñëpp ñëw à la place de la nation ndax foofu rek la ñu am wax rek la ñu mën ndax boo mënul di nga wax ba ñëpp dégg la ñu ngi ñuy jaay doole waaye nous restons sénégalais te wax gi ñu am dinañ ko waxee fi ñu ko war a waxee le 12 donc on donne rendez-vous à tout le monde bu ko kenn manqué ndax la défi de la mobilisation dafa bokk ci xeex am na ku nekk fi muy xeexee waaye bu rassemblement jotee mobilisation bi dafa war a mag sëkk donc on appelle tout le monde vendredi 12 à partir de 15 heures à la place de la nation di wax rek ni fas yéene nañu organiser marche blanche marche blanche boobu liñ ci jublu mooy dindi tuuma ndax lu ne ñu ñu koy teg ku nekk ngi ñuy tam dëmm waaye ñooy cuuraayu dëmm bi ndax ku jafur mooy wax dañoo jafur te marche blanche bi liñ ci bëgg mooy wane ni waa Pastef ay nitu jàmm lañu jàmm moo ñu tax a jóg xeexal sa réew nag buñ la ci bëggee utalub ay di nga muñ de waaye doo teggi sa tànk te doo dellu ginnaaw te fas yéenewuñu dellu ginnaaw marche blanche boobu su boobaa dinañ ci woo sénégalais yëpp de waaye bëgguñu benn jigéen des ay fulaar yu weex tàll la ñu bëgg di dox ndànk pour wane ni ah xanaa sañ nañoo jooy ndax nit doo ko dóor ba pare ne ko doo fi jooyee jooy boobu ñuy jooy nag dañ koo bëgg a def ci jàmm ndax ñu ngi jéem a dëkkal Ousmane Sonko fu ne naan nitu fitna la nitu ay la waaye ñun xamuñu fitna xamuñu ay bu dee nag wax dëgg mooy fitna gi kon ñoom la déranger kon li leen di déranger mooy dëgg gi waaye bu soobee yàlla duñu teggi tànk ci li ñuy def waaye dinañu wax ba askan wi yëpp xam ne jàmm rek moo ñu tax a jóg te jàmm rek la ñu bëgg ci réew mi. dinañu dem seeti ji les familles religieuses dinañu wax ak ñoom ndax ñoom it nu mu mënti demee rek ñoo fi ne te ñooñu jiitu ci ci ci ci diine gi kon dinañu waxtaan ak ñoom xamal leen ni ñun Pastef ay nitu jàmm lañu te loolu la ñu bëgg waaye nag di bañ a guddal ndax dafa am dialogue bu fiy wootee muy loo xamante ni dialogue bi da ngay dem ba mujj gi mu def la ay ree ndax booy woon nit ki ci dialogue danga koy woo wax ak moom mu tontu la waaye di wax ak nit ki jàkkaarlook moom jël sa bët di toxoñ ci jël sa baaraam di toxoñ ci bëtam ne ko kaa ñu dialogue kooku dialoguewul day fo wala day noggatu et on n'a pas l'intention de participer à cette farce looloo tax ñun jigéen ñi tamit dañ ci ànd ak suñu leader xeex ko parce que dialogue bi euh, ça n'a pas sa raison sa raison de d'être kon dañ koy dañ koy dañ koy euh, dañ koy récuser mais di wax ni benn option la ñu am ñun jigéenu Pastef option boobu benn la mooy sunu plan A mooy sunu plan B mooy sunu plan C mooy la candidature du président Ousmane Sonko pour les élections du 25 février 2024. mooy sunu candidat ñu ànd ceeg ñëpp mooy sunu candi candidat ñu jiitu ci muy suñu kàddu gu njëkk muy sunu kàddu gu mucc Ousmane Sonko mooy candidat wu jigéenu Pastef ak Pastef pour sunuy élection te fas yéene ci nag négocier dara parce que li ñu bëgg xam nañ ko l'éliminer annuler sa candidature et son éli son son euh, euh, éligibilité loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg ndax xam nañu li ñuy def yëpp pour lan la kon nag loolu wax bu leer la Ousmane Sonko est notre candidat et Ousmane Sonko incha allahu rabbi fera partie des élections de 2024 euh, xanaa di tëj rek ci ne Ousmane Sonko espoir ou jeunesse la espoir u peuple la yéen mbokk jigéen ñi dama bëgg ngeen yeewu te ngeen xam ne combat bi du diggante Macky Sall ak Ousmane Sonko mais combat la entre un pouvoir dictatorial et son peuple meurtri